salaamaaleykum suñu mbokk internet yi bëggee Galaye Talibé Bamba ci Sénégal Buzz 221 tey maa ngi waat fii ci golf euh, gisaguma Balla Gaye 2 nag waaye gis naa Aline Badara bu ñu nee Aline Badara xam ko ci famille Balla Gaye 2 donte mook saalif la suñu borom dogal ñuy ànd waaye ci jege jegeñaale Omar yi Omar wóolu la ba ci koroog gis nañ ko biir stade niñ ko gisee woon ci biir stade nag xaw nañoo jaaxal waaye baat ak tontu lay doon amaana mun nañoo am lu ñu leer. ndax koroog nee nañ jaxasoo ñu trop ba ci man mii damay wax ni koroog jooy naa per Balla ci géew bi jooy naa per duubal dañ koy bàyyi moom mu nuyoo rek ñu dugg ci waxtaan bi alin Badara maa ngi lay siyaar. waaw Bamba maa ngi lay ziar. di la jox sa wàccuwaay. Mhm. di sant uh, Serigne Touba bu baax a baax. Mhm. ñaari waajur. Mhm. waaw di lool. di ko wóoluwaat di ko doyloo di ko yaakaar. waaw ginnaaw ci loolu Alioune Badara. ñu gis seen combat bi bi ngeen di départ ci golf wala sax ci open press ba laay wax ren da ngeen innovation biis ngeen yóbbu open press koroog jouru combat bi ñu gis fil bu gudd jëm Kër masaar bi Balla di génn fii confiance bi ngeen am ak bi Balla génnee Kër Massar jëm esat ñaari confiance yooyu dafa mel ni bokkul waaw xam nga galaay làmb mm-hmm. làmb la tudd waaw da làmbatu Balla Gaye 2 li mu liggéey la woon ay supporteram mhm. ok te dafa liggéey tamit lu tax ñu topp ko ok waaw mhm. Mhm. waaw nit nag soo liggéeyal doo ñu topp la. jikko ñi nga nekkal tamit booy jug ñëpp ay jóg loolu la rek comme làmb ni mu daan jóge la jóge rek <laughs> te jóg bi mu génn bi mu génn fii nii gañ gañ mësu koo génn ci làmb. waaw mel na ni korog bruit bi bari woon na trop. mais euh, man dama gis benn genre pression ci yéen wala ci Omar buñ ko yenn sa première sortie sa papa génn àdduna est-ce que loolu Korok Omar doxewu ko ba mu touché ko lool. non xam nga Balla Gaye de mënut a loolu ndaxte. nekkul mbër moo xamante ni benn at def ci làmb wala ñaari dëgg la nag waajur dafa diis. Mhm. ki daan ànd ak yow. Mhm. bu la manqué rek ngay dem. Mhm. noo boo ko waxul sax dina am di nga xam ne yow mi am na lu manqué ci rawatina nag muy sa waajur. <laughs> waaw Korok Aline ñu gis. donte korog ci mukaayu bàll bi ak dugg stade bi. Mhm. xat-xat bi bi ñëwee ba ci bunt bi bari woon na lool. Mhm. korog jaxasoo boobu. Mhm. gis naa la say jaabante bunt esaat ci oto yi di ñëw dem ñëw amaana sax gis naa si oto bu mag bi nga yóbbu gaayam bi ne ko gaareel ma ko nii mais bu ko laalaat. ñëwaat loolu ci mystique bi la woon wala jour boobu coow lee tolloon foofu. non xam nga tey loolu mën naa ni buuxante ni ko ñëpp gisee. loolu rek moo am quoi parce que nit ñi ku ci nekk sa yéene ngay am rek mhm. mais ñoom ñëpp buñ sañoon Balla Gaye de am ndam waaw mel na loolu mais am ndam bi est-ce que demul ba sorxo sorxo ci biir marque manque organisation waaw mooy ni kon dafa tas daal seen cumukaay dafa tas mooy li ma la war a nit ku nekk fi nga war a yem rek boo fa yemee mhm. lépp dina yomb mais est-ce que tey fu galaay war a yem bëgg faa yem badara mi nga xamante ne xam na ni waru faa yem du ko yemale aussi tamit parce que bisu uti ah buñ jortee ni galaay ëpp la mun nañoo yàqal est que fare na ko du gën waaw xam nga galaay bu fekkee ëpp la mën na ko mën na yàqal nit ñi moom moo war a xam ne carrément lii bokku ci tey waaw parce que korog gis naa daal maanaam cumukaayu Omar bi badu yow dem naa ba ci biir sax ma gis la après ci ginnaaw barrière cumukaay bi nga dem taxaw waaw parce que écartement boobu non parce que mën naa ni mënoon naa mënoon naa ñëw di xar-xarloo ak ñëpp mhm. n'est-ce waaw parce que nekkoon naa moom regroupement mhm. ñoo doon ànd entraînement chaque jour mhm. nekkoon naa ak moom regroupement. mais damaa xamante ni bi ma paree ma li may def amatuma fa soxla. ok non mais moo tax ma isolé wu taxaw na. non mais attends boo même boo paree li nga daan def dañ daan gis Badara. ci supporters yi sax bu ñu xoolee Badara ci doxinam rek confiance day gën a yokk mais korok Aline dafa toog daal dafa mel ni bombardier jàpp gi moom da leen booleeg. Omar rek Badara <laughs> gars yi rek. parce que dafa mel ni boobu xam na ne Ndakaar la doon bëree boobu mu jël waa Ndakaaru tëj leen ci benn porte ba gars yi gëlëm dafa mel na korok da ngeen gëlëm moom. magu làmb da leen manqué. xam nga tey làmb moo tax li ma la wax tey bisu bisu bisu ñàkk. Mhm. du bisu am. ban keroog may wëri ci barrière yi sax damaa wéeru rek nekk <laughs> nekkatoo fa kon kon jàpp bi mel na ni am na. non jàpp ma dama ñeewantaloon sa waay xam nekk ak nit. Mhm. nekk ak nit. Mhm. ba mu war a xëy bëre même loo loo am confiance am confiance am confiance dina am lu ma dina am lu manqué ci yow. ok parce que ñeewanteel boobu day am. ok mais mais mais ñu naan Balla Gaye mu xajamoon ba la ñu bëggoon a gisaat te gisuñu ko entraîné wul combat bi kontaagul ba ñu gis ko nëbbatu na te mel na ni nee nga boo leen nekkee regroupement regroupement bi ñenn ñu nee nañu wakaam la woon ñi naan mamel. Mhm. est ko que Omar daan na làqatoo noonu ay supporters am ñu bañ koo gis. xam nga tey mooy li ma la wax tey Omar mhm. fi mu nekkoon ñu ko doon gis bëriwul. Omar fi mu nekkoon mën naa ni bu daan mbedd bi sax bu daan wàcc dem entraînement la fa daan bu fa buy wàcce bu demee entraînement ba ñëw. Mhm. bu yéegaatee. bu wàccaatee entrainement la. ok mais mais mais taq bi booy neen dana gis Omar nekk ci. écurie bi taq ren écurie Père kenn gisu ko fa. xam nga tey moo nekkul mbër muy yàq làmb mais xam nga tey am na loo xamante ni boo ko waxee. Mhm. nit ñi dañ naan li mu ñàkk la wala dara. non mais mais mais mais mais mais li ko dal. Mhm. gallaay man suñ Tuubaa laa gëm ak Cheikh Rafal. ak sa kenn jaruluma may fenn. dëgg la li ko dal mbër mum daloon doo bëre. mais lu ko dal. mais lu ko dal ba tuddul kay warul dara non non si. parce que tey nit la boo xamante ne nii tey mhm. du yàq làmb chaque jour man wax naa ko keroog rek. Mhm. di ko am na loo xamante ni faa nga xool sa ginnaaw faa nga xool sa ginnaaw di la mhm. boo boo taxawee sa di ko wax dañ naan amaana li ngay wax ni amul. te ñun ñii xam nañ ci dara man dama cee xam dara. mais nee nañ ki ko bu fekkee gaañu bi la wax ki ko gaañ nekkul écrit per Balla ñu ne Njaga Doole moo gaañ Balla ñenn ñi ne bi Balla Gaye di am doole Njaga Doole war koo mën a gaañ ci entraînement. Njaga Doole gaañul Balla Gaye 2. isam la gaañul Balla Gaye 2. kon lu gaañ Balla. yooyu yooyu yooyu ah, yooyu accident de travail la day dal ku ne ci liggéeyam. accident de travail la day dal ku ne ci liggéeyam. mais ñu ne Omar dafa nekk euh, Europe. di nax supporters yi bu duggee ci saali xaw a pompé wu tuuti gars yi filmé ko gars yi nu Omar a ngi entraîné mu dem tëddi ñooñu loo leen di wax. Galaye Balla Gaye de bi muy wàcc bi muy wàcc bi muy wàcc AIBD fii di jóge Europe. waaw gumba sax bu taxawan dina xam ne kii dafa liggéey. ci nan. non parce que ñun kenn mënatuñoo nax ci entraînement. waaw waaw war naa mën a nekk de. kenn mënatuñoo nax ci entraînement man dama doon ànd ak moom muy entraîné xam nga tey nit ñi ñuy wax nii man. su ma ko waxee amaana man nañ gis ni jege la wala far mhm. mais man dama doon ànd ak moom muy entraîner man maa doon chargé poids maa ko doon jox poids yi man maa doon chargé poids maa ko doon jox poids kon xam naa ne liggéey na man neen lu nit wax nag dama taxaw mais mais contact bi la ñu wax kon xam nga ne mbëri na dem saal yokk volume mais dem contact niis dese dooleem ci biir quoi contact boobu ñu ne Omar def ko waaw mais accident de travail day am non accident de ba bàyyi accident de travail nan ko constaté nan ko constaté accident kay dañuy wooyu police <laughs> gars yi ñëw constaté xam ni mu demee mais nee nañ daal Omar maanaam doole ju bari jamu daan ànd ak jeunesse beek fugu bi donte tey li ko topp moom moo ko liggéey. Mm-hmm. mais daal nee nañu entraînement bi Omar daal defu ko. contact bi. Mm-hmm. Badara nee nañu donte dem saal lu bokk ci mbër la parce que day yokk volume moom mais nee nañ doolee mbër dëgg mooy contact ñu ne Omar defu ko parce que ñenn ñi nee nañ day day rusa ñëw simmee ko booy gis formam xarab ko. <laughs> Balla Gaye 2 mhm. yan booy ñoo moom ñoom lay rus ñu ñoom lay bañee ñëw simmeeku seen kanam booy yooyu ñuy rusa simeeku seen kanam kan moo ko ci dàq bëre kan moo ko jëpp doole ba muy rusa ñëw simeeku ci seen kanam mën a bëre am na kenn waxatu ko waale kan Omar moom mën a bëre kenn waxatu ko mais nee nañu forme xam bu njëkk Balla Gaye 2 macha allah waaw ci ci ci ni ma ko mën a waxee endurance forme mhm. palmarès mhm. ci ñëw star rek wala ñëw entraînement rek doxinu Omar rek daan na képp ku mu fa fekk mais nee nañ gisatuñ ko Omar dafa dem di tëju euh, ut fu muy entrene écrit ba tànn ay booyam dem toog nekk feneen te bu njëkk jaxasoo bi ñu ne père Balla manqué na fi père Double manqué na fi moo tax ñëwatul ci loolu. Balla Gaye de tànnul benn booy. chaque ngoon booy yëpp dañ daan ñëw fekk ko fi muy nekk ñu entraîné. te géejawaay bii la doon entraîné see. mais ci biir ci biir ci biir stadium bi la ñu wax pas écrit ba dañ daan jënd suuf sorti mu contact ci biir. loolu mosuma ko fekk fi muy jënd suuf. stadium bu géejawaay bi d' accord waaw. non mu jëli suuf ñu. sotti la waaw pas jëndi suuf mais li mu doon def li mu doon def ci stade bi lu ko raw def na ko géej. lu ko raw def na ko géej boobu xanaa da ngeen doon laqatu parce que Omar moom mënut a entraîné géej bëccëg. non guddi gi la doon entraîné chaque kon temps bi ñu wax loolu moo ko xañ. temps de ba amul temps de récupération. mais xam nga tey Balla Gaye de koo xam-xam ni Balla Gaye de galaay professionnel la. non c'est que xamal leen ma bëgg lu ma bëgg tey sénégalais yi xam ko. Mhm. El Hadj Diouf footballeur. waaw 2002. defoon na lu waaw bi ko waree xalab dañ koo xalab foofu daal nga ko bëgg a wéer non dama lay wax du question fi nga ko bëgg a wéer waaw biñ ko parce que bu la bëggee xalab moo wax ba du la xalab waaw loolu am na El Hadj Diop footballeur defal na lu ne Sénégal 2002 mhm. biñ ko bëggee xalab dañ koo xalab day doon day dox sax koy saaga waaw loolu am na kon Balla Gaye de sportif la mhm. bu ko nit waxee loolu tamit day loo ko wax tamit da koy dégg rek toog ok mais ñi ne tey Balla du jël Boy Niang mais Boy Niang décision arbitre la ñàkkee ñi ne am na deux deux défaites ci bés boobu Bombardier da ko daan wëlbët gàng. mu jël décision arbitre bëggatuñu Balla Gaye 2 ak Boy Niang. décision ak ak wëlbët parce que nee nañu la dama ne wëlbët gàng. <laughs> Uh-huh. arbitre dafa sifflé pare. Uh-huh. ok yaa ngi fa woon nga ne arbitre dafa sifflé pare. waaw ñu ngi décision arbitrage la jël avant combat bi avant arbitre di sifflé. 3 boobooy quatrième bi. trois la jël. avant arbitre waaw. kon ci biir combat bi ñaar avertissement la ci am. Balla non avant arbitre sifflé benn la am. ñaar arbitre non benn. ñaar la am. non benn ci affaire du yéex mystique bi. waaw yàgg ci biir géew bi sa waay ne daf ko sànni dafa am lu mu ko sànni. waaw waaw waaw ok boobu mooy deuxième deux deux ah, kon trois avertissement la am ci biir lamb. waaw. cinq avertissement mu ñàkk. waaw mais ball Gaye 2 ci cinq avertissement gars yi xaaraay wuñ ko woon ci loolu ak tey ni at Sénégal. xaaraay woon retour mhm. Balla Gaye sénégalais sénégalais moo naafeq. Balla Gaye dafa am yëpp moo ko def. mas nga gis bomba masa massage Bombardier arbitre la mu adversaire yi mu bëre yëpp. Mhm. carrière ba mu démarré ba ñu ba mujj arbitre mu taxaw di la xaar. waaw mais Omar Sakho lay bëre dama lay laaj déedéet mais Omar lay bëre kon moom moo ragal Balla Gaye. non kon ba combat mhm. la am kan moo ko def kan moo song Bombardier moom gaynde la. waa kan moo song waaw damay kan moo song combat kan moo song. Omar moo song. Omar action yi fa am yëpp yëpp. mais bi lu mu fekki. mu songee lu mu fekki. mais li bi mu songee la mu fa fekk <laughs> parce que daf ko ñëw jàpp ñu dóorante. ok looloo fa boo xool Bombardier dem na Ardo te Balla Gaye demul Ardo. waaw loolu kon kuyim ko lan lan lan lan ko def. ok man ne woon naa bis bu jëlee coup Bombardier buri ko ruyal un tey ñu ne jàppale am na ci Yaxya Jóob Yékini loolu yéen bi ngeen ko déggee nu mu leen def yaxe Jóob jàppale na. xam nga tey buur lu ko folli ki ko ah. folli du ko bëgg mukk. li loolu. waaw ah, buur. waaw ah. ku ko folli. du ko mës a bëgg. kon gëm ngeen ni Yaxya Jóob taxaw na. loolu moom la moom su ma doon jàppale kenn day fexe jàppale boppam moom bi muy bëre Balla Gaye daan ko loolu la loolu la waroon def moom. ok <laughs> mais ba mu moom bi la ko sa waay daan ko benn taaku benn taakusaan mu daan ko ñaari jël. waaw ba pare duma ko daan ko. waaw man moom damay wax nii waa Géejawaay wala supporteru Balla gay de yi Balla yaa tuufee. Mhm. jox na leen lépp lu mu am. Mhm. jox na leen roi des arènes daan na fi ku kenn. Balla Gaye de Géejawaay ko deseel Géejawaay ko deseel <laughs> mais moom deseelul géejawaay. mais ci nan géejawaay la géejawaay ko de géejawaay la deseel. non géej géejawaay ko deseel. Uh-huh. géejawaay ci axlul làmb ba léegi xool ko ca jam paaya ba léegi. Uh-huh. ancien gulwaar yëpp kan moo mës a dugal géejawaay roi des arènes. non dégguñ ko. kan moo mës a dugal géejawaay roi des arènes ancien gulwaar yëpp. ok mais da nga wax lu am solo non non non Balla moo tax ma ne la Balla Gaye ak waa Géejawaay waa supporter am waa moo fait ancien gloire yi ñi fi nekkoon takk nañ seen ngemb ba tekki mhm. ay magam ñëwaat takk seen ngemb ba tekki moom mu ñëw doon seen rakk takk ngemb ñu leen roi des arènes ok kon Géejawaay ko deseel moom deseelul Géejawaay ok mais tey euh, Badou dafa am loo xamante ne man personnellement dama ko gis korok ci bagage yi mhm. mooy tey dañ ne koo bokkulul écrit mhm. warte ñëw sa cumukaay Omar ak Salif ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. écurie Double Less la Salif nekk. Mhm. Omar nekk école de lutte Balla Gaye. waaw Bousse écurie Mor Fadam lañ ko xamee donte Lirou Diane magu Balla Gaye 2 la. mais écurie Waalo lañ ko xamee njaga doole gis nañ ko ci biir géew bi mu kaalawu pourquoi Salif ñu écarté ko ci kaw est-ce que loolu deful ci sa frère dara wala lu ko gën a jaxasoo boobu lan nga ci wax waa seen parce que taxawu na Omar bañ ne tey la xareem te ñu bokk tey war nga cee xam dara parce que yéen a doon nekk. saa gis muy dugg ci stade bi gis nga ko noonu. non départ bi fii ba Kër ma Massar maa ngi leen topp. ñëw na ba ci bunte stade bi. ba déggoo ma ne départ ba Kër Massar topp naa mu delluwaat këram. Mhm. simmeeku sangu yeneen bagage waaw hmm? waaw. kon li ko warloo woon ak magam. Mhm. def na lépp. ci nan no Salif daan na toog ci mukaayu Omar. waa mais kañ Omar xaar rek Omar taxawal taxawal taxawal. waaw. saa kër kañ la a toog ci mukaayu Omar. depuis ba fi. bañ ñi ba ba ba CNG ñëw indi règlement. waaw loolu règlement bu CNG wax la ñaar ñu bokkul écrit. Mhm. waruñu kenn waruñoo fekk. ndel léegi kon buuse lu mu def seen cumukaay. non buuse buuse bu buuse man buuse jàppee du ma ko mbër. lu tax. no si parce que tey xam nga tey koo xam dafa nekkoon ci làmb bu jógee ci làmb la rek. luy loolu. no si liiru jaan no liiru ñoo tamit galaay. non mais Balla Gaye magam la loolu kenn wérante c'est normal mu ñëw bu ñu ko doon aj ci làmb 15 ans dina ñëw mais kon c'est normal Salif mi bokk ak Balla ndey ak Baye ñëw mais Salif ñëw a def na ko la mu daan def gisuñu ko taxaw ci biir mais nekku fa ci kaw la yéegoon mais la mu war a def fa lañ ko fekk la mu war a def na ko li saa gees moom mu war a def def na ko Balla Gaye li mu war def def ñu ne seen cumukaay bi sabar gu tas gi si na bëri ba ci ku mel ni ñaaxarañ loolu ñu ngi dégg yenn booy di ko wax dara man moom ñaar affaire dama la koy wax hmm. sëriñ jabar hmm. xarit. kenn du ko tànnal kenn. waxaatal. sëriñ. jabar. xarit. kenn du ko tànnal kenn. ok lu waral loolu. waaw parce que Balla Gaye de ni tey ni mu dokkee tey sama xaritee noonu la nekk xaritu keneen. ok isam loolu ku ci li ma wax rek ku ci ne sa yéene nga amoon rek ñëw. waaw. ma ni comme ku ci nekk sa yéene nga am. mais ñenn ñi xamul. Mhm. yow en tant que Badara mën nga war a mun a xam lu indi woon ñaa foofu ci barab bi. Galaay ni dama lay waxaat pour nga dégg. dama la nit ku nekk sa yéene. nga am ñaalam séq ak Balla Gaye 2 ba ñëw. ñoom ñaar ñoo ko séq. ok ok léegi waaye léegi man xam nga tey la laa leen di wax li may li man li may jaaxal chaque jour. Balla Gaye 2. bi bi mu daan bëree combat di daan ñu bëri pour naa dañ ko doon dar comme nii. kan ak kan. bëri na ku tax gaa yi mën a jàmbat nii. ah li tax gaa yi jàmbat nii kan ak kan ci rax ba tax gaa yi jàmbat làmb la mhm. làmb la moo tax làmb la mooy wax làmb la ok mhm. làmb boo nee làmb rek coow ci tegu ñu ñëwaat ci ki nga wax ni buur ki ko fooli di ko neex mhm. Yaxya Jóob Yékini ba tey ak Balla seen combat déggoon nañu mu ne ba après combat bi bëggu ci jàmm tey ngeen déggaat jàppaleem loolu wax bu démb bi ak taxawaay bi ñu wax ni am na ko ci seen diggante ak bombardier waxu démb bi ak taxawaay bi tey. mooy man li ma la wax ci laay delluwaat. Mhm. moom su doon tey gii mënoon na jàppale boppam moo gënoon a soxla ci carrière am daan Balla Gaye numéro dë moom moo ci gënoon soxla carrière am daan Balla Gaye 2. mais nag boo demee ba nit fooli la leen rek nga mën def xam nga jaan moom bu la topp bu la bu la rombee nga topp ci wàccit bi di dóor li ngay def amatul sens. gis nga li ko Xaadim Njaay wax dëgg la boo nee mag bëre ba ay bëre da say rak. mënta xañ Balla Gaye de dara mënu koo may dara. mais buñ nee jàppale na mbër mu daan leen mu metti leen kon kay mu ngi koy xañ dara. kan lay metti xam nga tey mën na metti supporters yi mais mbër mi loolu athlète bi loolu méttiwu ko. ndax yow ka ngay ka taxaw di def loolu. yaa ko dee daan ko benn tàkkusaan duma ko daan ko lu ko mbër ma sa def. lu ko mbër mas a def moom ne naturellement nekkul ku baax bu doon ku baax la mu dem jàppale ji ay rakkam yi yi mu yoroon ci écurie-am écurie-am mu baax boo defee ba boo defee li ngay def pare da ngay gunge ñeneen du dara du dara. mais lu tax du dara te mu nekk 15 ans dara. mais mais mais mais mais mais mais mais Yaxya Diop Balla Gaye de doonte Yaxya Diop bàyyi na. Mhm. haine bi fan la nekk quoi. doonte haine bi ci moom la xam nga haine bi ci moom la xam nga bokk ngeen métier bokk ngeen métier. Mhm. àdduna ñëpp ñëw Tyson fii bi Balla Gaye de bi Pam Gaajo da nga ko ko fee gis. Mhm. Bombardier mi nga xamante ni moo doon bëreeg Balla Gaye sax te daan ko par avertissement ñoo na keroog jaale si ko. nit da ngay nit da ngay doon référence. kon yaxee jaalusiwul Balla de référence kooku du référence man du ma tudd turam kooku du référence. kooku du nit koo xamante ne référence la. ok léegi ñetti combat Balla gay yi des risque bi. risque amu ci risque amu ci xale la xale la. waaw na nekk ci na nekkaat ci li mu war a nekk. ndam yàllaa ko yor kenn yoru ko àndaat ak ñi mu war a àndal yàlla mooy ko ndam yàlla mooy maye ndam na nekk ci li mu war a nekk mhm. kese ok léegi combat ban ngeen ci njëkk a jël Gris Bordeaux wala Eumeu seen non loolu moom loolu moom da nga koy laaj staff bi dëgg staff bi mais kenn dalaa mën a génne ci staff mais dama mais yow bu dem jotee mais tey man du ma ko tànnal ku muy bëre non mais xam nga règlement contrat bi mu demee woon bu jógee ci bu jógee ci bombardier moom moom moom déedéet mu ngi koy xoolul contrat yi ñu signé la bu jógee ci bombardier soit Eumeu la wala Gris wala Boy Niang mais moment bi waaw léegi man dama lay delloo question bi damay bàyyi ba nga dégg ko micro yow Balla Gaye lañ fi dalaloon ah hmm. di frère Omar ak Salif nam nañ nag sa frère Salif trop moom daa mel ni problème adversaire la am lu ko dal non Sa Thiès moom mbëri yoo ko ñimewu loolu laay jaar ci digg bi gars nee nañ Sa Thiès Papa Sow combat la bëgg na ah bëgg na. papa eh, Sa Thiès Bombardier moom Bombardier nee na ma kooku laa gën a soxla sama àdduna loolu moom wax na ko fu ne. <laughs> waa léegi nee ko yàlla baax na. yàlla na ah. ko yàlla defal jàmm ban tasanteeg moom. loolu rek laa koy ñaan. dugg na ci kër gi deux fois de. non loolu laa koy ñaan baabu ñettee du tas kër gi kër gi. ah lion bi la daan de ñaari yoon. galaay kooku suñu doon bëreeg moom bindal nga takk téere man maa la ko wax suñu kër sa kër saagee sa gi di taxaw physique bu ñu doon bëreeg moom vite lay doon waaw yow bàyyi yow nag kon yaa ngi may door tax Salif xaw a yambar nii ndeke ko sam bi kii dëgganuma dëgër de <laughs> Salif Salif xam naa tax nga yambar <laughs> yow kii bu la jàppee bu la papi jàppee nga doyal sëkk <laughs> jàppee nga doyal sëkk tey euh, Badara question yu mujj yi Balla Gaye 2 ak yenn supporters yi nga xamante ni jàpp nga ni dañoo xàddi lan nga leen dénk en tant que tey doon Balla Gaye ku ci xàddi doo gor ndax lan wax jaa noonu ndax lan koo xamante ni moo lay defal lépp mhm. supporters yi ci bëri ñuy wax moo leen di jënd moo leen di jëlal kaar mhm. jënd leen ay ticket mhm. jox leen ñun togg regroupement mhm. mu indi la ndam yu ne tey moo am lii tey nga bëgg a xàddi ku ci xàddi doo gor kon Balla day def loolu lépp lépp da koy def da lay jox moo leen di jox biyee def leen lépp ok Boy Niang nee na ci yéen lay soxali ko waatee loolu mooy question bu mujj ñu bàyyi la nga tàggoo ah waaw ci ñun lay soxali <laughs> yàlla baax na ne ko yàlla baax na <laughs> <laughs> ñu bàyyi la nga tàggook mbokk internet yi la doon suivre tey Alioune Badara lañ fi dajaloon frère Balla Gaye 2 ak. waaw mais waaw mais kontaan na kontaan naa wax dëgg yàlla. kontaan naa te àdduna loolu la daal. di ñaanal Balla gay 2. yàlla indi ko yàlla indiwaat ko daal. waaw mayaat ko wér gu yaram bu baax a baax a baax a baax. mais bi leen njëkkee daan da ngeen feebaroon. loolu nag loolu nag mooy li ma la wax nag loolu nag moo tax bëgguloon an bëgguloon daan bu njëkk bi wéréw leen. nga laay Balla Gaye moo ëpp jom ci mbër. loolu man maa la parce que da nga koo jege. moo ëpp non dama lay jom ci mbër loolu laay tàggale ko moo ëpp jom ci mbër. <laughs> waaw ok waaw mbokk yi loolu rek la leen andiloon naa Galaye Talibé Bamba di bëggee Abbas Dioba frère Sa Thiès xaritam ak Aline Badara di suñu di sama xarit ma nga ba Paris di ko ñaanal jàmm ma nga fa ak abdu Kassé di Sa Kajoor ah, may ñaan nag de la part de Guédiawaye man dama koy ñaan forcé wu ko. du xalaatu saa kajoor du xalaatu keneen man galaay taalibe bamba maa ne xadi soxnay saa kajoor jafe woon na lool sa jëkkër doon dégg daal ba déggatu ko ay at ñu ci bari xaddi nga toog di muñ mel ni nga war a mel macha allah bu la neexoon nga ne dama doon ànd ak moom ca ba muy xew xewatul naa ko bàyyi ngalla dama leen di ñaan saa kajoor ma ngay faju yàlla na yàlla yokk wér waaye nag di wàcc wala ngay jóge hôpital di gis sa njaboot dalay yokk wér ma koy ñaan ku ci mën taxaw xadi jabaru saa mu fekki saa am na fu mu nekk ak moom ma koy ñaan Omar feebaru saakajoor su ma nee def nga ci sa doole ba tàyyi am naa ci lu ma leer te xam nga ne am naa ci lu ma leer may ñaan soo ci amee xam-xam nañ dimbali xaddi mu dem fekki saakajoor kajoor donte un mois dina yokk saa kajoor wér loolu rek la leen galaay di wax di ko ñaan ak Matar Ba ministre des ak képp ku bëgg saa waaw ni ko Badara di waxee Marème fay Sall képp ku bëgg saa kajoor. géejawaay yëpp nañ ci jàpp ñoom la Diop Alioune Sall. Mm-hmm. ñoom Lat Diop Alioune Sall ñoom <coughs> ñëpp nañ ko jàppale mu dem fekki borom këram. dëgg la parce que jaadu na nañ ko jàppale ñoom ñëpp autorité Géejawaay Lat Diop Néné Fatoumata taal mm-hmm. ñoom ñëpp nañ ko jàppale mu dem. Andaw mm-hmm. Pam Mama Fall ñoom ñëpp Andaw Pam Mama Fall ñoom ñëpp nañ ko jàppale Aziz Ndiaye Baye Ndiaye. Aziz nag mention spéciale. lu ko mm-hmm. nit wax ku nekk rek da ngaa gorewul mention spéciale. gaa yi neen xam-xam bi da koo réer korok. bi Bombardier dóoree Balla Aziz Ndiaye mention spéciale man de maa ngi koy ñaanal àndam Balla Gaye 2 <laughs> mu sax ñoom bàyyi ñoom dégg daa korok